asalaamualeykum wa rahmatullah bokki taalibi yi fi teew ak bokki jullit yi njabootu Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda yal na fi yàgg lool tànd ku wér ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gépp waaye ak seex yi nga xam ni seen maam yaa àndoon ak Cheikh Ibra Fall ak taalibe yépp ñoo ngi leen di ñaanal ak yàgg ak wér ak gën a jekk baatum ndigal bii mu mel ni nag daa am ndigal lu ñëwoon ci sëriñ am bi mi nga xam ne moo fi nekk tey toog a jotaay bi Cheikh Ibra mu jottali woon ko ku mbokkal Cheikh Ibra tegal ko ci loxo sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne moo jëwriñam mu jottali ko mboolem rakkam yi mbokkal Cheikh Ibra Fall gépp fukki bundi kër Cheikh Ibra Fall yi ba ci maam Saliou Fall ak Cheikh Sepp ak taalibe yi ñu tàmbali woon ko ak àjjuma di ko wër muy corniche bii ba yàlla dogal tey jii mu sori lool waaye baat da baat ñu nag ngir ñu daje si fii ci gaara su Dakar ci kër sëñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan sëriñ bi bëgg a wax nag ay kàddu kàddu yi muy wax nag ñun ñëpp a ko bokk sëriñ bi bëggoon képp koo xam ni dégg nga kàddu yii nga fas ko yéene jëfe muy rakk boppam yi muy taalibe yi muy doom yi muy soppe yi muy wóllëre yi fun mën a jëm ndigal nu fa yóbbu ndigal nag sëriñ bi nee na caabi la su ëppee du ubbi waaye bu yeesee du ubbi kon caabi na yam rek fun mën a jëm daal nañ leen déglu baat bi ndax bi ñu wooye ba ñëw kër sëñ Tuubaa am na ñun ñu booleel ñu war a yëkkati kàddu ñooñee nag ku ndox ba daje yow ci waar wi lépp luñ la wax bul ni damay xaar ba sëñ am di Moodu mel na ñëw ma doog koo bàyyi baa ma bàyyi ba sëñ Talla Abdoulaye Fall ñëw ma soog ko bàyyi sëñ Talla nga toog di dégg sëñ Fallu bi sëñ Abdou Sakor nga toog di dégg waa kër sëñ am di Xadi nga toog di dégg sëriñ Cheikh Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall mi ngi toog dégg ak mboolum seen rakk yëpp kon lii ñuy wax ñun ñëpp a ko bokk. turu jëwriñu Cheikh Ibra ji di sëriñam di Fall moom sëriñ Modou Mbenda di jottali am nuyoom di jottali ay cantam ak i ngërëmam mu jëm jëkk si jëwriñam ji Cheikh Modou Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba te di ko liggéeyloo. waaye muy jottali ay cantit ci mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ni ànd na noog moom nangule ko ndigal li nga xam ne moo jóge ci sëñ Tuubaa ñëw si moom di jottali ay cant mu jëm ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall te tey muy seen jëwriñ ñoom ñëpp ñu nangul ko déggal ko lool jàpp ko lool waaye jàppale ko lool muy ñi sëñ Moussa doon tudd tàmbalee si ñii nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibra bu nu ko limee rek daanaka du ko jar noonu ko sëñ mu saa waxe rek mboolem ñi mu bokkal Cheikh Ibra la dale si maam Saliou Fall ma bokk ak moom lépp bokk ak Cheikh Fall lépp ba si maam Saliou Fall mi nga xam ne mooy caatum Cheikh Ibra sëriñ bi wax ne mi ngi leen di jottali ay cant ak i ngërëm di seereel mbooleem taalibe yi mboolem. ñi nga xam ne ñi ngi nuy teew la nu dégg si ne sant na leen gërëm na leen yàgg na ko wax nag ñëpp di ko dégg kon des da koy feddali rek wax ne yan bii dey woyof na tooy ndax lu si waroon a diis rek ñoom yenul nañ ko ko ba mu woyof tooy di sant mboolem njabootug boppam gii jëwriñam yi nga xam ne ñooy ak njabootam nekk fi kanamam te nanguwuñ liggéey bi jege suuf sax ba di ko laal taaw ko sa kaw téye ko sa kaw mu ndigal lu fi mës a tàbbi rek fi moom ka ko ko jox muy sëñ Tuubaa am na si la ko gënal am na si ndam la mu doon séentu loolee nag xam naa moo waral ndigal lii nga xam ne moom la ñu yónni ñu jottali ay kàddu fii nu toll mu wax ni li weesu lépp rafet na xolam sedd na si lool ndax defe na ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee woon ba nga xam ne taalibe yi ànd nañoo ak moom ba ndigal li rotee rek la mu njëkk a def mooy santaane ñu daldi topp ñi nga xam ne ñoom la bokkal Cheikh Ibra kenn ku si ne mu yónnee ndaw fa yow yëgal la liggéey bi yëgal la ndigal li waaye loola doyut mu woowaat leen fa wetam ñoom ñëpp ñu maase wuy si ko mu leeralaat ndigal li wax leen li si sëriñ bi bëgg ak sàkku moom it la mu bëgg ñoom taxawaay ba mu bëgg nu am ko waaye wax na ni mboolem taxawaay bu mu si doon séntu am na si lu kawe njortam ba nu tàmbalee ba fii nu toll nee na lépp rafet na ñu am lu nu dëgmal nag muy loo xam ne si ndigal li la bokk ndax ndigal li ba mu ko seetee ñetti poñ la woon bi si jiitu woon mooy corniche bi corniche bi niñ ko leerale woon ñëpp sëriñ bi daa bëggoon téeméeri mètre ak ñaar fukk yi nga xam ne moom la yaatoo ñu leeralal ko ko ba mu leer nañ lépp lu fi nett am bokku si ñu génn ko ba mu set loolee ba nu ko waxee jëwriñ yi nga xam ne ñoo ne si kanam mbooloo mi jiitu taalibe yi topp si defe nañ ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee woon ba tey jii mel na ni liggéey bi bu egguti set cate na lool dafa mel ne roñ ay ëkk moo si des te roñ bi li si des bëriwut lool waaye ndigal loolu daa am lu ci tege woon muy kàmb yee nga xam ne moo nekk ci euh, ndaamaatu ndax kàmb yi ak dex la goo xam ne ndox dafa daa daje si nawet bi dem ba noor bi sax ndox mi dafay nekk ba nawet fekkaat ko fa mu doon bërëb boo xam ne dafa nekk ci digg dëkk bi nekk ci digg ndaamaatu jege lool kër yi sëriñ bi am ñu mu tànnoon ñoo xam ne daleen ko doon saytuloo ngir ñu sakkal ko ci pexe ñooñee nag ñëw fi moom du Modou xaar daal koy xamal ni ko li jiitu si li war a def daal mooy manque ndox mi ba mu set ñu tibb ban ba sa suuf ba mu set ñu daal koy sëkk ak suuf suy dund booleeg di ko dame ba mu egsi ci kaw ndigal loolu yi moo toppoon ci ndigal li nga xam ne mooy ndigalu corniche bi ñu war see tab bi mu doon ndigal ñaareelu ndigal li nga xam ne suñu bàyyikoo ci corniche bi rek sa lañ war a tàbbi kon ñu fas yéene suba nu àgg fa defe ko noonu ndax ñi nga xam ne ñooy camion yi nga xam ne ñooy camion citerne yi di camion vidange gannaaw ba nga xam ne pompe yi sëriñ abi bi mi nga xam ne moo yor Touba si kanam yebaloon na fa ay pompe ñu doon manque ndox mi ay fan waaye ndox ma bari bari waay boo xamante ni jàppoon nañ ni fan yii ñu jàpp ngir liggéey dem tàbbi foofa si liggéey ba jàpp nañ ni pomp yi bu dee ñoom rek a na danañ fa amaat ab diir soog saa mën a dem loolu doon sababu jëwriñ yi xalaatoon ñu sàkk yeneen pexe Cheikh Abdou Latif sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou Latif ànd ak sëriñ Mouhamed Diop mii si ndigalul jëwriñ yi nga xam ne ñoo leen yab nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànn boole kook ñoom ñu xalaatoon ñu yóbbu fa ay camion citerne ngir ñu manque ndox ma loola liggéey booba def nañ ko ñaari fan àgg na bëkki démb terewul ba nu xëyee ndox mi dafa tàmbali woon di yéegaat ndax foofa dafa am napp doo waaye napp boobee nag waa Touba si kanam nag ñoom it daal di wéyal la nga xam ne loolu lañ fa tàmbali woon muy pomp yañ fa nekk defoon di ko manque ndox ma ñoom it ni wéyal ko ba yàlla dogal fii nu toll mën na nañoo jublu ci sëkk bi loolaay sababu sëriñ bi sàkk woon ci daayira yi nga xam ne ñoo yore benn suuf yi diggante njaareem ak Bambey ak Mbakke ak Touba ak Daaru Muxti ni nu ko baaxoo def rek ci liggéey yi sëriñ bi so nekk yépp waxtu wu leen sëriñ bi yittewoo sàkk ñu ñëw ñu ànd ak seen jumtuwaay yépp ñëw ànd ak sëriñ bi loola sëriñ bi sàkk ko ci ñoom ba nu nangul ko ko waaye ñu jàppoon ëllëg nag muy ajjuma incha allahu ngir ñoom ñëpp ñu maase dem ci kamb yi di tibb suuf di indi di yóbbu si si si kàmb ga ngir ñu mën koo sëkk ba mu mel ni ko sëriñ bi bëggee loolu war a am suba te liggéeyu marché bi nekk fi waaye ñoom ñi nga xam ne ñooy saytu ak di seet nu mu gën a jub ñu toog xalaat ni woto yooyu yi nga xam ne ñoo war di indi suuf ak pelle mécanique yi nga xam ne ñooy tibb suuf si di ko tasaare bu nu dajee sa kàmb ga sa bërëb boobee te fekk bërëb ba dafa xaw xat buñ fa dajeeg mbooloo mi liggéey ba du jàppandi moo taxoon ñu ne nañ sàkk yeneen pexe yoo xam ne dina tax ba liggéey boobee mën a jàppandi ñu mën koo àggal ci bisub suba bi te du tee ñu mën a jublu ci beneen liggéey muy liggéeyub feese marché Ocass loola mooy sababu sëriñ bi tànn na nag subaat nag ngir bu machine yi nekkee foofe ak benn yi di yóbbu suuf sa ak di ko maasale ak di ko sëkk ñenn si mbooloo mi ñoom ñu jubal marché ocas ñu xëy marché ocas ngir loolee fa sëriñ bi sàkk woon mooy mbedd moom yi nga xam ne moo jóge ci station 28 dem ba mbëkk sa kër sëñ Daam Dramé muy mbedd mu yaatoo ñaar fukki mètre ak juróom-ñett te sëriñ bi waxoon ni mbedd moomu da bëgg nu yaatal ko mboolem la fa ne te bokkul ci mbedd mi ñu dindi ko ba mbedd mi leer naññi waaye mu dolli woon ci ne mbedd yi nga xam ne da see soqi nag jëm ndijoor ak càmmooñ mbedd yooyu yëpp ay mbedd la yoo xam ne mënees na fee dugge mënees na fee génne waaye mbedd yooyu yooyaa dañ koo sakk si ay yu ñu bootal yuñ ko bootal ak ay taabal ba mu ne su faa jaar bu fa ñaari nit wala ñett ndaje kenn ku ne da ngay wetu ngir jàll mbedd yooyu it ñu war koo leeral ba jàll nag sa ginnaaw mbeddum jóobentaay ma ak mbedd mii nga xam ne moo fa rek fi ñuy wax marché forot lépp loo xam ne dafa nekk si kaw yoon wi loole ñu dindi ko loola nag ndigal la lu nu war a leeral ndax marché occas day bërëb boo xam ne ay nit a fa nekk di fa yaxantu seen alal nekk fa ñu di fa daan seen doole. sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo joxe ndigal li moom de moo jiitu sa loola la mu sàkk mooy nu defaral ko te kuy defar doo yàq li ko sëñ Moussa doon wax léegi rek Seera Fall moom defar rekk lañ ko xame ndax ba mu ñëwee dafa fekk lu lu lu jaxasoo woon ci yoon wi mu defar ko ba mu jekk ba bi ñu fi jógee amatul dara loo xam ne les war a defar la ndax lépp defar nañ ko ba mu jekk kon kuy tuddoo Cheikh Ibra Fall di wuyoo ndigalul Cheikh Ibra kon kooka wërta jege ak yàq sëriñ bi sàkk woon ñu tàbbi si liggéey boobu akuk dal ñu tàbbi ci akum xel ñu tàbbi si ak pas-pas boo xam ne ni ko sëriñ bi waxe lanu koy defee te duñ si yokk dara duñ si wàññi dara mooy sëriñ bi bëggut ñu yàqal fa kenn dara sëriñ bi bëggut ñu laal fa dara lum nu laalloowut ay mbedd la ñuy leeral waaye dugguñu si kantinu jàmbur ubbiwuñ palaasu jàmbur jëluñu marchandise su jàmbur di sànni tojuñu weer di jàmbur loola lépp sëñ bi def lawu ko benn murit te nun ñi nga xam ne dañuy wuyoo Cheikh Fall si ndigal rekk la nu ma sa xam li tax Cheikh Modou Mountakha tànn njabootu Cheikh Fall dénk leen liggéey bii dafa am yàqin si ñoom mooy dafa am yàqin si nun waa kër Cheikh Fall xam ne lum nu digal danañ ko defee nam ko bëggee te duñ si yokk dara duñ si wàññi dara waaye su du doon loola mën na koo sant keneen ku mën a doon te bu boobaa nu defal ko ko kon yàqin jooju mu am si kër Cheikh Fall xam ne Cheikh Fall defal rek lay def waaye du yàq mukk seddi na loolee nag la ñuy soññee sunu bopp di ko soññee mboolem ñi nu bokkal yoon wi. ci liggéey bii nu sëriñ bi sant nu tàmbali ko ba fii nu toll te dara xewu si lu naqari sëriñ bi ñu am pas bu àggale ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee kon marché boobee mbedd ma lañuy leeral dañoo wax ni territoire yi territoire bu ci weesu ñaari meetar dañ koy wàññi ba mu tollook ñaari meetar bu dee mbedd mii nga xam ne moo jaar si digg bi muy mbeddum vingt-huit bi jógee 28 ba ba muy egg kër sañ daam Dramé képp ku am place boo xam ne dafa ubbee si mbedd mi bu dee da ngaa am mbaar moo xam ne ëppul ñaari mètre bu tiim sa place di la nëbbal aw naaj sëñ bi waxoon nu dindi ko. maanaam place yi nga xam ne mbedd mi nga xam ne moo jógee 28 station bii si 28 wuti penku dem ba mbëkk sa kër sëñ Dame Dramé mbedd moomu dafa yaatoo ñaar fukki mètre ak juróom-ñett. moo tax ñu naan ko 28. mbedd moomu li sës si bi si ndijoor muy cantine yi ba la sës sa càmmooñ foofa ñaar fukki mètre la ak juróom-ñett ah, foofa lañ wax ni bu fekkee ni dafa am cantine yu ñu fa bootal wala mu am taabal yu ñu fa teg wala ñu am leneen lu fa nekk loo xam ne dañ ko faa yokk loola des koy dindi ba mu àgg sa fa nga xam ne mooy limitu fa cantine ya yem wala fa bâtiment ya yem waaye nag bu fekkee ni dafa am mbaar moo xam ne dafa soqi ko si dafa nekk si kan kaw ab cantine wala ab magasin te mbaar mi guddewul lu ñaari mètre tiim mbaar mi tiim bunt bi di ko nëbbal aw naaj wala ab taw mbaar moomee kenn waxul nu dindi ko bu dee territoire ba sa suuf moom it romb ñaari mètre loolaat kenn waxut nu dindi ko waaye bu ñu fa bootelee ab cantine nag mbaa ñu bootal fa ay taabal mbaa ñu bootal fa lu mu mën a doon ci diggante bi loola dañ koy faxas bu mu set incha allahu bu dee nag mbedd yi nga xam ne ñoo soqi koo ci yoon wu mag woowu jëm ndijoor ak càmmooñ ñaari mbedd yooyu moom moom mbaar xaju fa ndax day mbedd yoo xam ne mbedd yooyu xat la yaatuwut kon yooyu su fekkee ni dafa ami mbaar dañuy dindi mbaar ya su fekkee ne dafa am trottoir nag bu weesu ñaari mètre la sa ëpp sa ñaari mètre yi la ñuy dindi bàyyil ko la nga xam ne moo fa des loolu mooy ndigal li nga xam ne moo jëm ci marché Ocass sëriñ bi wax ne nun ñi fa jëm nan fexe ba bu nu weesu fii nu sëriñ bi digal buñ laal yëfi kenn buñ yàq yëfi kenn ñii sëriñ bi tànn ñuy suñuy jëwriñ di suñuy kilifa te war a nekk ci sunu kanam nañ leen xool te di leen déglu lépp lu nu joxoon ñu jëm sa te waxtu liggéey bi àggee ñun ñëpp ñu àndandoo dellu si waat aussi kanamu sëriñ bi loola mooy ndigalul marché okaas bu kenn jiitu sëriñ bi bu kenn yëkkati dara te sëriñ bi waxut joxewu ndigal ndax jëwriñ yaa ngi nii toog jiite liggéey bi ñoom ñooy joxe baat rek ñu jóg loola lañ bëggoon a waxtaane li ci dolliku sëriñ Fallou Cheikh Amadou Bachir moom sëriñ Abdou Khader di jëwriñ yi yore kàddu Cheikh Amadou Mountakha dafa yónnee ndaw si Serigne bi daa wax ne ko marché bii nga xam ne moo doon marché gaar bi te mu santoon Cheikh Rafal ñu leeral ko ña nga xam ne ñoo fa newoon da leen na toxaloon daa joxe woon ndigal ñu toxal leen sa marché bee ñuy wax domine ba ba ñoom ñëpp dem nañ fa ña ngay seytu bërëb ba ba fii mu ne la sa war a am lépp mel na ni jege na waaye Cheikh Modou Mountakha dafa doon santoon moo Modou Bachir ne ko damaa bëgg nga demal ma si sëriñ am ni nga wax ko ne ko marché boobee damaa am yéene ñu tuddee ko maam Seynabou Ndiaye di ndey maam Cheikh Ibrahima Fall te damaa bëgg bu nu àggalee liggéey bii mbooloo mépp àndandoo àgg fa Cheikh Modou Bassir moom mooy teewal sëñ Mountakha su ko defee ngénte ko joxe turwa su ko defee ñëpp xam ne lii daal njukkal la loo xam ne Cheikh mënta Mountakha moo ko jox seen seen bu Ndiaye mi nga xam ne mooy ndey Cheikh Ibrahima Fall. kon bu nu nappee si liggéey bi bu fekkee ne àgg na suba incha allahu bu yàlla dogalee liggéey bi àgg suba muy fees a ya bu àggee marché bi àgg lu mu ngoone ngoone Cheikh Modou Bassir nee na sëriñ bi rek lay déglu waxtu wu liggéey bee àggee rek ñu yëgal ko ko su ko defee mbooloo mi jubal foofa. moom dana ànd ak ndaw yi si ko sëñ Muntaxa booleel ñoom it ñu àndandoo jawal foofee nga xam ne mooy marché ba su ko defee ñu ñëw mu joxe ndigalul sëñ mu li loolu mooy ndigal li nga xam ne mooy ndigal li mujj te sëriñ bi waxoon nu jottali ko njaboot gépp yëg ko ndax bokk na si ndigal yi mu waxoon nu jottali ko mooy bërëb bii ñu leeral ba mu leer muy corniche bi sëriñ bi wax na ni dafa sant sëriñ am ni moom moo Modou Mbenn mu tànn ay jëwriñ ci kër Seera Fall muy fukki buntu kër ak benn yooyu yi ñu tudd ak ñi nga xam ne danoo àndoon ak Seera Fall ba Seera gërëm seeni maam wala mu gërëm seeni waajur ñu tànn si ñoo xam ne sëriñ bi da leen di dénk lii nga xam ne moo war corniche bi ñu di ko saytu nga xam ne ay secteur la sëñ bi wax nu def ko ko secteurs yi mooy boo déparé poste contrôle ba egg si jàkkaay sëñ Cheikh Saliou foofu sëñ bi daa bëgg nu wu tànn ñenn si njaboot gi dénk leen ko ñu di ko saytu waxtu wuñ gisee ku fa def lu wuuteeg lii sëriñ bi bëgg mu am fa wala lii nu fa dindee képp ku fa def lu wuuteeg lu mel noona ñooñee ñoom la sëriñ bi sant ñu am taxawaay yañ war a am seen digg ak moom li si dolliku boo jugee jàkkay sëñ Cheikh Saliou ba ba ngay egg Madiana foofaat sëriñ bi tànn ñu mu ko dénk buñ jugee Madiana ba ba ñuy egg gaara su Daaru Musi foofaat noonu ba nu ñuy dellu siwaat fii nga xam ne mooy poste contrôle loolu nag sëriñ bi joxe na ndigal ñu saytu ko danañ si waxtaan ak Serigne Fallou mii toog ak Cheikh Amadou Moustapha mii toog di jëwriñi njabootu Cheikh Fall gi yëpp su ko defee ñu seet yoon wu nuy jaar ba loolee sëñ bi bëgg nu def ko na ko sëriñ bi bëggee loolu mooy ndigal li nga xam ne mooy ndigal li mujj. boo ko seetloo fi nu jaar démb ak bërki démb ajjuma ba léegi fii nu jaar boo fi jaaraatee tey jii di nga gis ñoo xam ne dafa mel ne dañ doon xaar ñu balal leen ba mu set rek ñu génnewaat installé waat seen i ak seen i atelier ak seeni i parking na ñoom la sëñ bi doon defaral te li sëñ bi jublu fii soxla ko fi sëriñ bi rek moo ko xam nun wutuñu si xam-xam ñun li nu xam mooy nu sant nu liggéey loonu nu liggéey ko toog di dégluwaat sëriñ bi ñooñee nag loolee ñuy def njuumte la te bokkul ak li sëriñ bi diglee sëriñ bi daa bëgg foofee ñu bàyyee ko ko sëriñ bi daa bëgg nu bàyyil ko foofa ba mu joxe si ndigal képp koo xam ne kii daal da nga fee yoroon bërëb boo xam ne dañ koo dindi lii sa jàmm mooy lañ la fa din lañ fa dindee woon nga bañ ko faa delloo ndax sëriñ bu bëggul dara nekkaat fa ba ba mu siy joxe ndigal loolu daal sëriñ Fallu moo doon li nga xam ne si ak tënk moom la sëriñ bi waxoon nu jottali ko loolu la sëriñ bi bëgg ñun ñëpp ñu fanoo ko incha allahu bu nu xëyee rek tàbb si bu soobee yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.